jigéen ak ndaw dañuy faral di wax ne nag ñu ne réew boo mënta nekk rek boo buggee xam avenir réew ma ëllëg xool ko ci ñaar walla benn xool ko ci benn mooy ndaw yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci biir réew mi xoolal ci ñoom su ko defee di nga mën a gise Sénégal seen fitiir ëllëg fan la mustaqbalu Sénégal gadan soo xoolee ci suñuy jeunesse di ko war a mën a jàngat li ñuy wax ne mag euh, tudd xale bu baax mooy mag gi ëllëg nekk mag bu baax parce que mag yi fi ne bay seen waar bu baax a baax sonn lool ci lislaam tette njaboot bi yar leen bu baax teg leen ci siraatal mustaqim ndaw ñi bu ñu góor góorgóorluwut ba mel ni mag ñooñu noonu bu ëllëgee échec bu rëy mooy am te tey booy xool Sénégal yàlla xam na ne dinga tiit ci fitiiru Sénégal ndaw ñoo xam ne gëmuñ dara lu dut fo gëmuñu dara lu dut fo ceppi ceppi ay ndagar walla yu kenn xamut di nga gis waxambaane boo xam ne bu la rombee fii di dox ci mbedd mi da ngay yéemu ci yàlla parce que la mu sol yàlla xam na ne ay cëram yëpp ñu ngi ci biti góor buy takk ay lam di def ay jaaro xam nga ne kooku moom bu fi yonent bi nekkoon démb ca lislaam duñ ko classé ci ñi nga xam ne ñoom lañuy tuddee as saxaabatul kiram nga xool tamit ci sunuy ndaw yi nga xam ne ay jigéen lañ ñu loo leen tey lu bari loo xam ne occidentaux yi ñoom ñoo ko def ne jigéen daal lu la neex sol fu la neex demal lu la neex waxal waaw l'islam bi ngeen di woote woo dafa méchant noonu lañ koy waxee dafa méchant parce que da da xañ sa liberté l'islam xañu la sa liberté te l'islam méchant wut l'islam dalay lay digal loo xam ne lu baax ci yow la boo ko defee bu ëllëgee njëriñ dong nga ci jële mu tere la loo xam ne yàlla xam na ne poson la boo koy jëfandiku boo koy jëfandiku rek mën na la gaañ ba foofu buñ fa xoolee rek dinañ xam ne ñu ngi ci jamono joo xam ne jamono ju jafee dund tey parce que da ngay nekk ci jamono ji di góor góorlu di dund sa diine di jaamu yàlla comme ni mu ware nga am ñoo xam ne ñoom ñooy taxaw ci sa kanam di la jéem a empêcher di la jéem a gàllankoor ci siraatal mustaqim Eh, moo tax ñooñu nga xam ne ay noonu lislaam lañ ñëw nañ di xeex lislaam di ko jaaree ci ñaari élément mooy ndaw ñi góor ak jigéen mooy waxambaane bi nga xam ne jeune la ak ki ñuy tuddee jeune fii dañ leen di gëmloo ne yéen la leen lislaam wax ne ay muuru ay yu kenn xamul yooyu dalay tardel yooyu ku koy def ne képp ku koy def yow moom gaal gi romb na la bu yàgg yow nandite woo boo moytul sa ñu tuddee la ngaaka ngaaka ndeysaan boo moytul ñu tuddee la ngaaka te li ñuy li ñuy man li may tuddee ku nanditewul man ngaaka ki ma koy tuddee mooy koo xam ne lislaamam xamu ci dara jigéen boo xam ne sa lislaam xamoo ci dara góor goo xam ne sa lislaam xamoo ci dara na nga xam lu la neex ci kaw suuf mais boo ñëwee ci diine ji moom nga nekk ngaaka bu rëy ngeen jéggal ma ci baat bi nag dañuy jàngale rek yenn saa yi nga bëgg dund sa diine def li la lislaam sant ci muur ga sa benn xarit mooy taxaw taxawaayu iblis sa xarit bu jigéen looy yàkkamti looy meer meerlu ah demagoo fenn nga naan da sol ay col kay meer ah da ngay fexe sol li ñuy sol di dangal ngeen jégal ñu de dañuy jàngale de parce que Dakar la ñuy waxtaanee parce que yu bari ñu ngi fi tey di sol col yoo xamante ni yàlla xam na ne bu la dara woddoon fii ci mbedd mi doo ko for dégg naa benn boroom xam-xam di ko tuddee foral mu musuwaar bi ñun dañuy jàngale rek nag. xam nga ne yére jooju nga sol ba dara waddoon la ci mbeddam mi ñemewoo sëgg pour for ko du lislaam du yére boobu la la sant nga sol ko lislaam moom du yére boobu la sant nga sol dañ lay gëmloo tamit ah waroo toog ci sa biir kër rek da nga war a génn ci mbeddam mi di dem di dox say soxla fu la neex nga dugg fu la neex nga fanaan fu la neex nga yendu parce que ci démocratie ñu ngi ci liberté kenn ku ne yaa moom sa bopp lu la neex nga def est-ce que jullit bi moom am na liberté totale lu ko neex mu wax fu ko neex mu dugg fu ko neex mu yëndu fu ko neex mu fanaan laa wa kalla wa alfula yow mi jullit yow mi jigéenu jullit yow danga nga am frontière boo xam ne boo fa taxawee boo fa accès ngay taxaw amoo droit di jéggi frontière boobu ñu déglu yàlla subhaanahu wa taala lan la yàlla wax ci alquran ne waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jaahiliyatil ula laaya bi boo ko déggee di nga ci jàngat yu bari yàllay wax yàlla nag buy wax ña koy jottali waxu yàlla la ñuy jottali constitution musulman yi mooy alquran sunu constitution ñun musulman yi mooy alquraanu yàlla ji bëri na lool ay article article nangam article nangam article nangam boog article yooyu noonu la yàlla envoyé waa àdduna jox ko ki gën ci mbindeef mooy rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ne ko yeggee ko say ñoñ képp ku ko topp texe képp ku ko woon ginnaaw bu ëllëgee bu dajeeg man ma duma ko kenn du ci man dara alxuraanu yàlla jooju la yàlla wax ak ñun fii mu yomb lool ci njëg mosumaa gis kaamil bu ñuy jaaye cinq mille mais ñu bëri ndeysaan dañ koo réere xamuñu ko wala qad yassarna alqur'ana li zikri fa hal min mudakkir yàlla ne alquran maa ko yombal pour ñu jàng ko maa ko yombal pour njëg ba du seer ba képp ku ko bugg a jënd jënd ko mais ñu bëri ndeysaan woon nañ ko ginnaaw fa hal min mudakkir léegi la nga gis benn xale bu ndaw bu am sept ans baqara ba naa si cent quatorze suura nekk ci dënn bi nga gis mère boo xam ne am na soixante-dix ans faatiha bu sell mënu ko nga gis paa bu am quatre-vingts ans falaqi ak naas yi mokkalu ko wa laqad yassarna al qurana li zikri fa hal min mudakkir alxuraan jooju nag moo am ay article mu nekk constitution mu nekk dusturul muslimin mooy sunu constitution ñun jullit ñi yàlla envoyé ñu ko jox ko rasulullahi ñu war ko xam senegal ngay dégg nañ jël xale bi yóbbu ko ca daara ja mu am sept nekk mu nekk fa ñu namm xel mi ci alxuraan bu fa jógee ñu yóbbu ko ca ekool ba yàlla deesu ko nax de yàlla deesu ko nax sa nit nag sa sa morom yu nit mën nga koo nax mais yàlla kenn du ko nax yéene jooju mooy ban yéene mais yow sa doom yi kañ fexeel ba kenn ku ne ñii buñ jàngee lii tey ñii nga jàngal leen lii parce que bu ëllëgee di nga soxla ñi nga xam ne ñoom ñoo jàng diine boo ko amee ci sa kër nag doo wàlli si mais jàngoo nga naan reccu naa la ma jàngutoon nga yor njaboot ca kër ga ñépp nga dugal leen ci école ba kenn demu ca daara joxoo yàlla kenn nga naan jullit nga te déggu nga ci sa njullite dañ xoolaat sunu bopp bu baax yàlla ci boppam mooy wax ak ñun ci article bi nañu wa qarna fi buyutikunna yéen jigéen ñi toog leen ci seen biir kër yi wa na fi bu buyutikunna na ngeen toog ci seen biir kër yi wala tabarrajna tabarrujal jaahiliyatil ula buleen leen taxawaalu comme ñi nga xam ne démb avant l'islam waa ceddo ga nañ doon taxawaaloo ci mbedd yi ak a bari tey Dakar ak bari Dakar tey taxawaalu te ña koy def yàlla xam na ne boo leen introsé woon tàllal leen micro lu ñuy wax micro territoire maa bayna faatima wa Salma wa Zeynab wa Aïssa diggante faatima kese ak Salma ak Zeynab ak Aïssa ñoom ñooy nekk ci mbedd yi di taxawaalu ay tu li ma bëgg a wax ay turu jullit lañuy yor ay turu jullit la ñuy yor lislaam moom lam ñu sant mooy jigéen na nga toog ci sa biir kër jamono di dox nag di dox ba tey jigéen ak góor ñoo yem ñu ne égalité walla parité walla yu kenn xamul waaw ar rijaalu qawwaamuuna ala nissa yàlla ne ba bés pencam yàlla góor ñi duñ musa yem ak jigéen duñ musa yem ak jigéen jamono di dox ba ñu imposé ñu ne ni ngay génnee di xëy sa kër yow mi góor di dem di liggéey di dajale dépense di indi jigéen bi tamit am na droit boobu di dugg ci marché yi di dugg ci barabu liggéeyukaay yi di indi dépense comme yow mais gis nga lislaam lam santoon góor moom la góor ñu bari defatuñ moo tax jigéen ñu bari di génn lay dundal jigéen ca biir këram warut kenn ku dut borom këram mais ku mel ni man dañuy wax ne bu may liggéey soxna si di liggéey rek kër gi day gën a neex mais ndaw si moom yow yaa koy war a yor donte yor na ay milliards sax yow yaa ko war a yor boog yàlla na ñu wala tabarraj na tabarrujal jaahiliyatil ula bu leen taxawaalu comme ni ñi nga xam ne démb ñoom ñoo doon taxawaalu ci mbedd yi mooy jigéen boo xam ne buy génn la muy sol dara baaxu ci muy dox ci ay mbedd dem fii ba Dakar ñëw yàlla ne bu ñu bu leen ko def bu leen ko def ay laatu laa tuzhirna zinatakunna wa mahasinakunna lil ajanib bu leen génn di wone seeni taar ak seeni colka ci mbedd mi boobu yàlla wax ak ñun ci aaya bii ne ndekete jigéen dafa war a toog ci këram sol colinu jigéenu jullit colka bi nga xamante ni moom la ko lislaam sant beneen bi ci topp ñu dem ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon nañu ne mujj mujjanteelu jamono gis na ñaari xeet walla ñaari élément yoo xam ne mu ne man gisaguma ko ci sama sama jamono mais dina ñëw ca kanam ñu ne ko ban ak ban la mu ne nit ñoo xam ne dañuy yor seen karwaas rek di karwaase nit ñi fu ñu romb nit ñi rek caw leen mën na xam naa ñooñu moom ustaas yi dinañu dimbale ba tekkil ma eh, ñooñu xaw ma ci jamonoy ceddoo la woon ku mën sa moroom duma xaw ma mais ay nit ñoo xamante ni seen karwaas lañ yor ku fi ñemmi ñemmi moom suñ la jàppee di nga xam yonent bi ne ñooñu dinañ ñëw ca kanam gisaguma leen nag mais dina ñëw xoolal septième siècle la ko alayhi salaatu wasalaam waxoon xoolal tey nam baree ci mbedd mi te mu tegaat ci beneen boo xam ne moo ñu tax a jóg mu ne gis naa ñeneen ñoo xam ne kaasiyaatun aariyaatu ay jigéen yoo xam ne ak a ñoo bëri ay yére mais ak a ñoo rafle loolu nan lay nekkee nga bari ay yére lool macha allah valise yëpp fees ay yére mais nga rafle fekk benn yére mënu ci julli amut benn yére bu ci mën a julli yor nga ñetti valise ca kër ga mais benn baaxu ca boo ci sol euh, xalifa général bu tuubaa ñë bu tuubaa ñëw fi mooy sëñ Muntaxa Mbàkke ñëw fi ñu ne kaay nuyu ko da wax ne abal leen ma sër wala abal leen ma abaaya wala ndoket kaasiyaatun aariyaatun mu ne seen yére yi bëri nañ lool mais dañu rafle parce que amul benn yére bu ñuy sol lu dul nga seen seen cër ya ca biti waaleykum salaam yére buñ sol rek buñ la rombee nga seen seen cër ya ca biti loolu mooy bari yére te rafle kaasiyaatun aariyaatun ah sëñ bi ñu ngi ziar mais bu fekkente woon ne foofu la yem alhamdulillah bu fekkente woon ne foofu la yem alhamdulillah mais yemu fa de mu ngi demantiir ba tey ne kaasiyaatun aariyaatun ñu ne ko ah foofu rek lañ yem mu ne déedéet alayhi salaatu wasalaam mooy wax waxam du fanaan àll wa maa yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuuha lu lu tax parce que yàllaa koy wax loo ne kaasiyaatun aariyaatun beneen bi ne maailaatun mumilaatun looloo ci topp boo génnee ci mbedd sol colka goo xam ne sa cër yëpp ñu ngi ci biti maailaatun mumilaatun moo ci topp ñiy dox doxin yooyu xale yu jigéen yooyu ngeen di seen ci tele bi ñuy cëppi cëppi doxin yooyu la ñuy dox maa ilaatun ay mannequin lañuy wax xawma doxin yooyu la ñuy dox mumilaatun soo demee ci pirim olof bi ne maa ilaatun ñu jeng lañ mais mumilaatun